léegi bu ñu duggee ci wàllu campagne agricole bi nga xam ne moom mooy ñëw dañuy sant dañu dégg ñu annoncé ko ñu ni vraiment mbir yi dina yegg ci population yi mhm. ci agriculteurs yi mais tey jii bu ñu demee diggante ngañ Diouf Mbayeen Pekes Kuul mhm. bu ñu laajee sama mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk yor jur soo leen laajee tey jii tàll leen micro dinañ la ni force de défense et de sécurité yi nga xam ni ñoom lañ ci bëgg associé pour wax ñu ni ça va garantir justement la bonne distribution mais population yooyu wóoluwuñ force de défense yoo fa nekk parce que tey jii boo leen tàllalee micro bu dee su ma nekkee en tournée dans la Ngandiouf et la Mbayeen mhm. liñ may wax moom la ñuy waxaat dinañ la ne bu seen jur bu ñu ko jëlee ba ñu topp tànk yi ba mu yóbbu leen ci kër gendarmerie arrêté nit ñi nga xam ne ñoom lañu ñu après midi bi nit ñooñu génnaat nañu. dañ leen di relâché. dañ leen di relâché. alors que les populations mordicus dañ naan ñii ñoo jël seen ay joor. lay indi rapport de confiance bi. donc ce qui veut dire que euh, li ñu bëgg a wax ni les forces de défense et de sécurité day tax mbir mi leer. taxul mu leer il faut que population yi xam loolu il faut que force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñoom lañ ci bëgg a mhm. li nga xam ni moom lañ leen ci xaare ñu mëtale ko parce que c'est pas juste un domaine municipal qui est entre Paris ak Dakar mm -hmm. donc le Kayor dama ko xam bu baax a baax dafa dugg bu baax a baax nekk population yi tous les mm -hmm. jours mhm. te bis bu nekk dañuy déplorer comportement force de défense et de sécurité yi en matière de vol de bétail